أيسمني الله عند الجاولي إبليس إذ ناديته بيا ولي نفى لغير الله قبل فندري بأهل بدن الأسود كدري السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بكي بكي تالبي بكي جلدي bokk yi bokki taalibe yi bokki jullit yi ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax a baax di leen ziyaar ci teertal uh, sunu weeru bopp bu rëy wi teertal bu weeru rëy wi te mag lool ci nun uh, cant

waaye man nag ni ma ko gisee bala ñu ko koo sant dañ koy sant ba noppi. nee na moom ni mu ko gisee ñun bala ñu koo santale dañ koy sant moom ba noppi. dañ koy sant diggam ak boromam. dañ koy sant digganteem ak boromam. sant ko diggam ak yonent bi. sant ko digganteem ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. sant ko gaay yàlla yi gaay gaay yàlla yi ci kaw. sant ko diggante ak gaay yàlla yi ci kaw. sant ko diggam ak gaay gaay yàlla ci suuf. sant ko digganteem ak gaay yàlla yi suuf. di ko sant ci jëmmi boppam ji. di ko sant ci jëmmi boppam ji. yan bu rëy bi mu yan diggante ak boromam muy màggal ko. yan bu rëy bi mu yanu diggante ak boromam mooy màggal ko. fa mu ko àggalee ni jote ñu ñu bari jotewuñu fa. fa mu ko àggalee ñu bari jotewuñu. ñu ñu bu ci ñu néew a ci jote. ñu néew a ci jote. buñ ko santee ba noppi nag. buñ ko santee ba noppi nag. door a jëm nag ci santale ko. door door a jëm nag ci santale ko.

muy moom rek muy sunu yitte. moom rek nekk sunu yitte. ndax nun mën nu ko fayee amul amul luñ ko mën a fayee. noonu nag amul luñ ko mën a fayee. loolu jox ko sunu lépp rek. loolu jox ko sunu lépp rek. nekkal ko nag. nekkal ko nag. ni mu ko bëggee ci nun ni mu ko bëggee ci nun nu nekkal yàlla rek. nu nekkal yàlla rek. ndax buñ buñ ko nekkalee ci ni mu ko bëggee. ndax buñ ko nekkalee ci ni mu ko bëggee. noonu la ko sunu borom bëggee ci nun noonu la ko sunu borom bëggee ci nun bu nu teewloo nag ci loolu ba noppi. bu nu teewloo ci loolu ba noppi. ba delloo ko suñu lépp. delloo ko suñu lépp. nu door a nag. nu door a dellusi nag. àndaat suñu sago. àndaat ak suñu sago. fas yéene koo santale nag. façon fas yéene koo santale nag. ci bis hmm. ci bis bii. kon man noonu rek laa ko gisee. kon man noonu rek laa ko gisee. kon sant ko ci suñu lépp nag. kon comme sant ko ci kon kon sant ko ci suñu lépp nag. mooy loolu rek nu nu delloo ko suñu lépp. mooy nu delloo ko suñu lépp. suñuy xel ak suñuy xol. suñuy xel ak suñuy xol. ak su su suñuy jëf. ak suñuy jëf. xam ci ci ci ci ci ci ci jàng alxuraan. tàmbalee ci jàng alxuraan. jàngal ko xasaayidam itam jàngal ko xasaayidam yii. nga xam diggante boromam rek ak diggante yonent bi. diggante ak borom rek ca nekk ak diggante ak yonent bi. ak deeyaaleem ak deeyaaleem rek la. ak deeyaaleem rek la. ñu nekkal ko ci bis boobu. ñun waaj waajal suñu bopp teewlu. ñu nekkal ko ci bis boobu waajal ko suñu bopp te teewlu. waaw teewlu. fonk fonk fonk jàng yi ñuy jàng alxuraan. fonk jàng yi ñuy jàng alxuraan. fonk ko bu jàng yi ñuy jàng xasaayid. fonk jàng yi ñuy jàng xasaayid loolu lépp ñu am ci pësteef. loolu lépp ñu am ci pësteef. di ko di ko sa di ko sàkkoo ngërëmam. di ko sàkkoo ngërëmam rek. gannaaw jàng yi jàng alxuraan gannaaw jàng xasida gannaaw jàng alxuraan jàng xasida ñu wëlbatikuwaat ci sunuy jëmm ñu wëlbatikuwaat ci sunuy jëmm nanu nanu gën a gën a tàggat suñu bopp nanu gën a tàggat suñu bopp gën a toroxlu jëm jëm ci gën a toroxlu jëm ci sant ko jëm ci sant ko jëm ci santale ko jëm ci santale ko kon bu nu bu bu bu nu teewloo ci sunuy xel ak sunuy xol ak sunuy jëf kon bu ñu teewloo ci suñuy xel ak suñuy jë ak suñuy yëpp. suñu wërsëg mi ngi ci biir loolu. suñu wërsëg wépp nag a ngi ci biir loolu. lépp nag ñu delloo ko ko. lépp nag ñu delloo ko ko. ci ci ci xeeti ci xeeti xeeti jëf yu baax. ci xeeti ci xeeti jëf yu baax yu mën doon nag rek xam ci wërsëg la jóge moo xam ci wërsëg lu jóge moo xam ci leneen lu mën a jóge moo xam ci leneen lu mën a jóge rek lu baax rek la loo xam ne lu baax rek la lépp ñu boole ko loolu lépp ñu boole ko jëfandikoo ko jëfandikoo ko jébbal ko ko jébbal ko ko santale ko ko santale ko ko diggante ak boroomam loolu mooy li ci jiitu loolu mooy li ci jiitu moo ci am solo looy loolu mooy li ci am solo yàlla na nu suñu borom gën a gën a gàttandoog taw feexam yàlla na nu suñu boroom gën a gën a noo gàttandoog taw feexam ba nin ko nin ko nin ko ko war a santale nu nu nu nu nu xamee ko ni mane ko ni nu ndax niñ ko war a santalee ñu xamee ni manee ko ni jëf jëfee ko ni jëfee ni jëf ju sell jëf ju sell yàlla na nu ko suñu borom yàlla yal na nu ko suñu boroom defal may nu kattan gun ko gun ko gun ko mën a santalee. may nu kattan gun ko mën a santalee. ci suñ lépp ci suñ lépp. kon jërë ngeen jëf. kon ñu ngi leen sant mi ngi leen sant jërë ngeen jëf. noonu rek la. noonu rek la. bokk yi bokk yi. bokk yi bokk taalibe yi bokk taalibe yi bokk jullit yi jullit yi. kon bis bis baa ñëw. kon bis baa ngi ñëw. nan ko waajal bu baax nan ko waajal bu baax. ni ko bëgge ni ko bëggee. sunu kem kattan sunu kem kattan. nu jéem ko. nu jéem ko. loolu ci man lu ci man lu nu ci nu def ko. nu def ko lu nu ci mënut. lu nu ci mënut. nu yéene ko. yéene ko fas fas ko. fas ko. jéem ko jéem ko. sunu kem kattan sunu kem kattan. waaw loolu loolu loolu loolu rek la demee loolu mooy mooy àq bis bii ñu jëm. loolu mooy àq bis bii ñu jëm. mooy sunu bis boo xam ne euh, la boo xam ne. bis boo xam ne. Euh, euh, li ci nekk ci ci ci jiw yiw yiw jiw ci mën nu ko wax ci suñuy làmmiñ mënuñu ko xalaat ci suñuy suñu suñuy xel li nekk ci njëriñ ci bis boobu yii di ñëw mm-hmm. mënuñu koo xalaat suñuy xel mënuñu ko wax ci suñuy làmmiñ nu koo xiyaas itam loolu rek la xanaa dañ koy dan dan dan da dañ koy sante suñu borom rek dañ koy sante suñu borom rek sëñ bi moom dañ koy sante suñu borom sëñ bi dañ koy sante suñu borom rek minu booleeg moom moom minu booleeg moom waaye waaye waaye du loo xam ne lu lu lu lu lu lu lu nu mën la. du du loo xam ne nag lu nu mën la. dañ koy bëgg ka jéem rek. dañ koy bëgg ka jéem rek. loolu noonu rek la demee. noonu rek la demee. kon nag euh, noo ngi sant. kon nag noo ngi sant. Euh, bokk yëpp. bokk ñoo ngi sant bokk yëpp. bokk bokk bokk bokk bokk bokk bokk yi. bokk yi. ñoo euh, ngi leen di sant bu baax. ñu ngi leen di sant bu baax. loolu nag sama sama wàllu bopp la. loo nee na loolu moom cant googu wàllu boppam la. damaa am cant gu rëy sama digganteeg bokk yi. ne damaa am cant gu rëy. sama diggante ak bopp yi. ñi ma ñi ma ñi ma ñi ma ñi ma ñi ma ñi ma ñi ma seqal sëriñ bi. ñi ma seqal bi. ñooñu ñoo si jiitu. ñooñu ñoo ci jiitu. ak ñi ak ak ñu ko bokkal ñëpp. ak ñi ñu ko bokkal ñëpp nag. dana am cant gu rëy goo xam ne mun mun mun xaw ma nu ma koy sante. danaa am cant goo xamante ne xaw ma nu koy sante. sama diggante ak ñoom sama diggante ak ñoom. waxuñu ma waxuma sax ñu jàppale ma. waxuma sax ñu jàppale ma. waaye dañ maa soññu. dañ maa soññu. dañ dimbali. dañ maa dimbali. maa sagal. dañ maa sagal mënuma ko lim. mënuma koo lim. sama digganteeg ñoom sama digganteeg ñoom. liñ ci jëf liñ ci jëf. Euh, mënuma ko lim. mënuma koo lim. kon kon. mboolem bokki taalibe yi. mboolem bokki taalibe yi. mboolem bokki yi. mboolem bokki jullit yi. nañu xam ne. nañu xam ne. sama bokki bopp yi sama bokki bopp yii. sant naa leen gërëm naa ñoo ko jë ñoo ko jëf. te ñoo ko jëf. ñoo ko jëf sama digganteeg ñoom. di sant nag. di sant nag. bokki taalibe yëpp bokki taalibe yëpp. ndax lépp ñun daal lenn la ñun ñëpp. ndax lenn lañ ñun ñëpp. ñi ñuy tudd di tudd sëñ bi. ñi ñuy tudd di tudd sëñ bi. ak ak ak ak ak ak taalib yi. ak taalib yi ak taalib yi sëriñ bi. ñun ñëpp. ñun ñëpp. lenn rek lañu. lenn rek lañu noo bokk lépp. noo bokk lépp. noo noo noo noo ànd lépp. noo ànd lépp. ñooñu itam. ñooñu itam. Eh, maa ngi leen di sant di leen gërëm. maa ngi leen di sant di leen gërëm. sant gu rëy a rëy sant gu rëy a rëy eh, ndax ndax eh, ñoom ñoom ñoom ñoom ñoom sama bokki taalibe ndax ñoom sama bokki taalibe ci ñaari anam laa ci taxawee. ñaari anam laa taxawee ci sama bokk taalibe sama digganteeg ñoom sama digganteeg ñi ma ñii tudd sëriñ bi sama bokk yi. ñi ñii tudd di tudd sëriñ bi sama bokk yi. ñaari taxawee la ñaari ñaari ñaari anam laa ci anam laa ci am. sama digganteeg sama bokk yi ñi ma bokkal sëriñ bi. sama bokk sama digganteeg sama bokk yi ma bokkal sëriñ bi. ñoom sama ñi nga xam ne xaddam laa ci ñoom. ñi nga xam ne xaddam laa doon doon ci ñoom. ak ñi nga xam ne mbokkum mbokkum mbokkum taalibe laa doon ci ak ñi nga xam ne mbokkum taalibe laa doon ci ñoom na ngeen na maa ngi leen di seeral rek sama nañu xam waxtu wu ne noo gu ma nooyi maa ngi ci leen di seeral ne maa ngi gën a yees sama jaayante sama sama jaayante sëriñ bi di leen di di gën a yees feddali sama laxsaay gi ma fas laxsaayoo fas yéene liggéey sëriñ bi lépp nag ma ànd ñoom te lépp itam lu ma ci ñoom laa ciy jiital ci sama bopp maa ngi fas yéene nokki gu ma nokki maa ngi koy fas yéene jaayante koog jaayante koog sama sama digganteeg sëriñ bi ak sama digganteek ñoom ak lu ma mën ci àdduna lu mu mën a doon rek ma ànd ba fas yéene koo ànd ak ñoom rek ba faw loolu loolu mooy mooy mooy sama cant ak ñoom ma ko wax sax. loolu mënu ma ko wax sax ndax mënu ma ko wax sax sama lamiñ. noonu la loolu laa ko noonu a firndeelee. waaye noonu yi rek laa ko mën a firndeelee. Euh, dellu si tam nag. dellu si tam nag. ci euh, cantuk boppam. cantuk boppam. muy sembu wu sëriñ bi. muy sembu wu wii nu sembal sëriñ bi. te te te te te te te mu bokkoon ca euh, la la la la la ministre la mébétaloon boppam la ministre boppam. mu bokk ci la nga xam ne moom la nisaraloon boppam. xaw ma sax nu ñu koy waxee waaye moom lu lu lu mu faggaloon boppam la. ba noppi xaw ma koy waxee waaye lu mu faggaloon boppam ba noppi la. loolu moom danoo am tawféex kenn. loolu moom danoo am tawféex. dong yem ca yem ca. nekkal ko ci nekkal ko ci. Euh, muy. liggéey bu bi muy daara ji muy liggéey bu rëy bii di daara ji di université bi. liggéey liggéey boobu. liggéey boobu. doy na waar lool ci man. nee na liggéey boobu doy na waar lool ci man. xalaat ji moom mënu ma ko ñàkk xalaat. xalaat ji moom mënu ko ñàkk xalaat. waaw da da fas yéene ko rek. fasiyene fasiyene ci fasiyene ci liguel serigne bi fasiyene ci liguel serigne bi waye nak waye nak fi ni ni ñu ko ande ak man ni ñu ko ande ak man muy bokki sama bokki bop yi muy sama bokki bop yi bokki talibi yi ak bokki talibi yi ni ñu ko ande ak man ni ñu ko ande ak man lu lu lu lu lu bettuma sax ndax xam seen diggante ak sëriñ bi bettu ma sax nag ndax xam seen diggante ñoom ak sëriñ bi waaye nag fekk naa ci ñoom lu kawe sama njort waaye nag fekk naa ci ñoom kawe nag sama njort loo xam ne eh, rëy na ci man lool loo xam ne rëy na ci man lool mënu ma koo xam nu ma nu ma nu leen di sante mënuma koo xam nu ma leen di sante te loolu alhamdulilahi rabbil alamin ñoom ñëpp ci maase te loolu alhamdulilahi rabbil alamin ñoom ñëpp ci maase ñëpp ci maase ànd ànd koog man ñëpp ci maase ànd koog man jiituwuma leen ci lu day ne dee dee ci be nee na jiituwuma leen ci lu day ne lii dee ci be noo bokk yéene ji noo bokk yéene ji xalaat bi bokk xalaat bi bokk pësteef bi bokk pësteef bi bokk jublu gi bokk lu jublu gi bokk jëf ji bokk jëf ji bokk bokk liggéey bi bokk liggéey bi kon ñooñu nañu xam ne maa ngi amel naa leen cant gu rëy rëy rëy. ñooñu xam ne amel leen cant gu rëy rëy ne dama ko dama dama dama dama dama damay ànd ak moom ba ci kanam borom liggéey bi. damay ànd ak ñoom ba ci kanam borom liggéey bi. ma ma ma ma ma ma sant leen fi kanam ma sant leen fa kanamam. loolu mooy lay lay lay lay sedd sama xol. loolu yi mooy sedd sama xol. foofu rek laa ko jëmee foofu rek laa ko jëmee. kon jërë ngeen jërë ngeen jëf. kon jërë ngeen jëf. maa ngi leen di sant gërëm bu baax a ngi leen di sant di leen gërëm bu baax yéen mbokk yi ak talib yi. di gën a santaat na geneen sant geneen sant bu ci dolli. di gën a santaat geneen cant nag goo xam ne moo ci dolliku. ndax euh, jamono jii nu weesu. ndax jamono jii nu weesu. xat na lool. xat na lool xatoon na lool. xatoon na lool. waaye. tawféex sëriñ bi rek. waaye tawféex sëriñ bi rek. moo moo nekk suñu kanam. moo nekk ci suñu kanam. ñun xamuñu dara. ñun xamuñu dara. doonul dara doonul dara. doonul dara mënuñu dara dara. tawféex sëriñ bi rek mooy la ñuy xool. tawféex sëriñ bi rek moom la ñuy xool. bu bu nu sëggee rek mu wonnu fan. bu nu sëggee rek mu wonnu. loolu rek moo ci am fan jëm. loolu rek moo ci am. loolu rek moo am. xew-xew bi amuñu ci woon benn benn tiitaange. nee na mosuñu ci am benn tiitaange ci xew-xew bi. ni ma ko daal leerale rek nun nun dana yaa yaar rek yaar moo moo nekk moo moo moo moo moo nekk ci suñu wet. ndax yaar rek moo nekk ci suñu wet. yaar yaar yi rek mooy moom moom la ñuy moom moom moom la ñuy jëfandikoo. yaar yi rek la ñuy jëfandikoo. mooy mooy mooy wéetal yàlla. mooy wéetal yàlla. yàlla mooy def mooy dindi. moo yàlla mooy def mooy dindi. loolu am yaqin ju sëkk. danoo am yaqin ju mat sëkk ci ne yàlla dong ngay def moom rek kay dindi. doyloo sëriñ bi itam digg ma boromam. doyloo nag sëriñ bi nag diggante ma boromam. ndax sëriñ bi lu mat a fàggu ci nun ndax sëriñ bi lu mat a fàggu ci nun fàggul nanu ko fàggul nanu ko lu mat a ñaan lu mat a ñaan ñaanal nanu ko ñaanal nanu ko te jiwoon na ci ak boromam te jiwoon na ci ak boromam kon kon yàlla nag yàlla nak mo xam limi def mo xam limi def soppiku jamono mosu fee jóg soppiku jamono nak mu mosu fee jóg digale mak jam yi mosu fee jóg digale mak jam yi mosu fee jóg te du fi jóg mukk lolu moy moy moy xew-xew bu yes lolu moy xew-xew bu yes bi lolu dong la loolu dong la waaye nag waaye nag amuñu ci lenn lu jël lu ñuy jaaxal nee na dara amu ci amuñu ci luñ ciy jaaxal lenn lu ñuy sikki sak wala lenn lu ñuy sikki sak musta am musta am ci bir lolu nak ci bir lolu ma am ma ma ma ma ma ma ma ma ma am ma am cant gu nag. ci biir loolu nag ma am cant gu rëy. ci ñi ñi ñi ñi ñi ko bokkal. ñi ko bokkal. ndax diine jee fi nekk. ndax diine jee fi nekk. ji ak adduna ji. am na ñu denk dénk diine ji. am na ñu denk dénk ji. am na ñu mu dénk adduna ji. am na ñu mu dénk adduna ji. nu bokk nu bokk bokk jamono. nu bokk benn jamono nag. bokk lépp nag bokk lépp nag. waaye nu xaw a waree. waaye nu xaw a aw doxin. aw waree aw doxin. waaw ñoom itam. ñoom itam. ci eh, eh, seen liggéey rek lañ nekk. ñoom nag ci seen liggéey rek lañ nekk ñoom adduna yi. ndax la la ñu xam. ndax la xam. borom xam-xam yi saahir yi. borom xam-xam zaahir yi. la ñu xam la ñu xam. moom la ñuy jëfandikoo. moom la ñuy jëfandikoo. Oh, loo loolee nag. loolee nag. ma sant am ci cant lool. ma am ci cant lool. waaw ndax eh, ndax. di di ñoo président président Macky mi fi nekk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 dimbali na ma ci sama taxawaay dimbali na ma ci sama taxawaay kem kattan lu ma defal rek sëñ tubaa tax lu ma rek sëñ tubaa tax dama koy gën a bàyyeeg sëñ tubaa waaye dama koy gën a bàyyeeg sëñ tubaa te xam ne du ko rëcc mukk te xam li du ko rëcc mukk waaw lii lii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 su kon nag sax sañ na noo sax dakk ci jaamu yàlla sañ na noo sax dakk ci li ko liggéey nan nekk ci diggante boobu nan nekk ci diggante boobu rek nan nekk ci nam nekkee ci diggante bee rek noonu la ñuy nekk suñu digganteeg moom rek noonu rek la demee ko nag euh, jërë ngeen jëf kon nag ñu ngi leen sant bu baax di leen gën a sant di yeesal cant gi bu baax a baax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 kanam ak gannaawam na yàgg lool. la ci la la ci jóg ndax la biir sëñ Tuubaa rek. te te te day wéy di wéy. te te loolu day wéy di wéy. buñ ko yemale fenn. incha allah duñu duñu xañ dara.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 nag jëme ko nag ca la nga xam eh, doxeen woowu nu dox doxeen woowu nu dox ñu jëme ko ci mu lam lam nuy andil lam nuy andil mu yiwu adduna mu yiwu adduna ak yiwu alaxira loolu rek la nuy andil loolu yi rek liggéey boobu buñ ci defee liñ ci man lépp loolu rek la nuy andil ko xamee noonu nan ko xamee noonu loolu foo ci laa fi laa nekk nee na foofu la nekk yéene naa ko sama bokki taalibe yëpp te yi nag yéene naa ko sama bokki taalibe yëpp waaw lañ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 te sëriñ bi ñëwut bor dafa am pay kon ni ko sëriñ bi santaane rek na ko bokk taalib yëpp xamee noonu ni ko sëriñ bi waxee itam njàngu alxuraan bi itam ni ko ni ko kilifaam yi jëkk daa diglee mi ngi koy fàttali ñëpp na ñëpp tàmbale santaane woon ko sax waaye neen mi ngi koy yeesalaat ginnaaw weeru tàbbi na ba bañ a àgg ci bis ba ni ko daa santaane yëpp mi ngi leen koy fàttali di fàttali itam xasaayid yi nga xam ne sëriñ bi ko def te sëriñ bi leeral lépp lim daa déyaale boromam loolu itam sëriñ bi ne mi ngi ci soññ bokki taalib yëpp ak lépp loo xam ne nit mën na ko ci lu baax na ko Cheikh Mahamadou Farid daa waxee nañ nañ ko màggal ci lépp loo xam ne ak jaamu yàlla ak lu baax kon nag sëriñ bi nee na mi ngi soñ bokk jullit yëpp di soññ bokk taalib yëpp ci bis bi nga xam ne amuñ lu moom muy bisu sëriñ Tuubaa bi bu loolu jàllee itam nag mi ngi soññ bokk taalib yëpp ci ni mu ko waxee nga xam ne ñëpp xam ne ne day itteem muy daaree Cheikhul Khadim ji nga xam ne manis naa wax ne naa li fi Serigne Touba bàyyoon moo fi des yàlla def itam Cheikh Abdoul Ahad Mbacke naaloon ko sëriñ Serigne Saliou Mbacke ñëwoon mottali ko bu ubbi daaree alxuraan ji bi yàlla defee nag kilifaam yi ko fi wutu di Cheikh Mouhamadou Lamine Bara ak Cheikh Sidi Moussa ku ci ne amoon yéene ja moom bi mu agsee nag waxtaan ba mu njëkk a wax ñëpp dégg nañ ko mooy. musuma am benn xalaat wala jënd yitte lu may daari Sëriñ Tuubaa ji kon nag Sëriñ Tuubaa da ko cee liggéeyloo liggéey bi it feeñ na ndax ba mu ko tàmbalee ba nëgë ni sant na bokk julli di sant bokk taalibe yi ndax wane nañ ci yitte wane ci taxawaay wane ci positif kon da leen sant ci li weesu lépp ngir xam ne la Sëriñ Saliou Mbacké daa wax ne joxe bi dafa jiitu laaj bi kon moo tax soññut sax di leen soññu. ndax xam nañ ne def ngeen li man ak li ngeen mënut te ko dem ci liggéey bi it da xam ne ñëpp wane nañ ci seen yitte wane ci seen taxawaay wane ci seen positif waaye nag yéene gim leen ko yéene ndax xam ne ni mu ko waxee rek lépp lu baax rek yéen la ko gën a yéene ci jëmmam moo tax bu soñoon kenn ku ci ne lu ci waay defoon rek na xam ne day door tàmbaliwaat ndax ndigalu sëriñ Tuubaa lu mujj rek mooy ndigal la te lii nag moo fi mujjoon ci ndigalu sëriñ bi kon sëriñ bi nee xam na ne li ngeen man ak li ngeen mën lépp def ngeen ko kon sant na bu baax waaye nag ki ngeen di jëfal teg na ci bëtam kon nag li ci kanam mi ngi soññaan ñëpp ku ci jëfoon nag na nga na na nga xam ne yaa ngi door mel ne kuy door a tàmbaliwaat te xam ne lu njëkk la suñ borom daal la ko fay suñ tubaab daal la ko fay waaye li ci kanam itam lu ci waaye defoon rek na ci defaat ko ëpp ngir xam ne liggéey bi liggéey bu yaatu la boo xam ne ni mu ko waxee rek yëmul fenn te keroog ba muy tax xeer wa ci loxoom yu teddee dafa waxoon ne. liggéey bu mu laal suuf kon loolu nañ xam ne amaanatul ci yoon wépp nañ xam ne liggéey kon bu mu laal suuf mel na nit ñëpp dégg nañ ko noonu waaye kon nag ñu ngi soññaat ñëpp ngir xam ne jëf ci moom la sëriñ bi bokk na ci njëriñi addiya addiya dana fekk fu dara nekkul mu def fa dara dana fekk fu dara nekk mu baril ko waaye dana fekk fu bari nekk mu barkeel ko kon sëriñ bi ne mi ngi soññ ñëpp ci bis bii nga xam ne ci lañ jublu si di ñaan ñu àgg ca te dugg ci bismillahi rahmaani rahim day ceeg tawféex day ceeg ngërëmu Sëriñ Tuubaa wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh أيسمني الله عند جاول إبليس إذ ناديته بيا ولي نفى لغير الله قبل فندري بأهل بدن الأسود كدري